مع عيوبي ومع غفاسي من قادني سكور في أنفاسي مع عيوبي ومع salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Ndindy Actu TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen wax ni ñëwati nañ ci seen beneen numéro bu bees nag cette fois-ci dañuy waajal màggaluk Touba maanaam li ñuy tuddee safaru Bamsa Chine yoonu Touba ñu fas yéene ko tàmbali nag ak suñu sëriñ sëriñ Mamor Mbacke xam ngeen ko bu baax a baax ci bande FM bi moom jaar na TFM euh, RFM bu Mbacke. Euh, la nekkoon waaye nag dafa mel ni jamono ji xaw nañ ñoo jege si fii ci Ndakaaru di ñu defal ay émissions yu am solo ci rajo RFM 94 point 0 ak itam li nga xam ne moo di télévision Futur Média Serigne Mamor Mbacke miin ngoon ko bu baax di surtout Mamor Diarra moom la ñu fas yéene àndal tey ci premier numéro waajtaayu yoonu màggal gi nga xam ne ci la ñuy jublu incha allah alors ñuy ziar. mbokki taalibe yëpp nag ci safar gi teru na xam ngeen ko tey defe naa la ñeenti fan sëñ bi defe naa wala ñett euh, ñu fas yéene nag ànd ak euh, taalibe yëpp ak cheikh Mouhamadul Mountakha ñuy ne yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko yegg ci màggal gi ak jàmm ak salaam incha allah di ñaanal mbokk taalib yëpp tey sàkku ci ñoom ñaanitam itam alors tey nag sëriñ bi Mbàkke bu ñu la ziyaaree ba noppi euh, li ñu bëggoon a waxtaane sa maam cheikhul xadim mi nga xam ni moo fi jóge woon kon euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dem ci tukki bu rëy euh, ne nag dafa bëgg bis bi saa su dellusee ñu santale ko ci yàlla njax cantuk ndax moom lott na ci euh, sant yàlla suñu borom ci xewal yi ko suñu borom defal waxtaan wi daanaka du génn foofu Mbàkke ndax itam yoonu màggal la ñu nekk incha allah ñuy ñaan yàlla suñu borom yegg ci jaam ak salaam waaye nag laata loolu dama lay bàyyi nga nuyoo ak waa Ndindy Actu TV. Mm-hmm.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 ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi dellu di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di santa Seexul Xadim di ñaanal Seex Mamadul Muntaxa xalif général des Mourides yàlla dooli ko fee yàggal bu baax te dooli ko wéral ba mboolem li mu yéene ci liggéeyal ko Seexul Xadim lépp suñu borom kattanal ko mu liggéey ba def ci na koy njottam di ko ñaanal mboolem kilifay diine yëpp di ko ñaanal mboolem jullit yëpp di ko ñaanal mboolem taalibe yëpp bàyyi mu ñu kenn di nuyu ñëpp di jël nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci sa loxo yow sëriñ Ahmed sekk di ñaan suñu borom defal la sutura defal la jàmm ak kër gu mag yi nga nekk muy Ndindy Actu TV di ñaanal itam soxna si soxna Ndey Mbakke suñu borom defal ko jàmm defal ko sutura ba yéene ji nga xam ne am na ko ci kër gi ba taxawal lii tudde ko nag dëkk bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Fadil gënoon a fonk muy Ndindi doon dëkk boo xam ne it Serigne Touba moo ko sancloo woon ci 1914 euh, mu sancoon ko digganteem ak Touba booba digganteem ak jumaa ji tolloon ci fukki kilomètre ca la joxoon itam ndigal Cheikh Mamadou Moustapha mu sancoon euh, Tindodi euh, nga xam ne ñaari dëkk yooyu ñoo tolloo diggante seen diggante ak jumaay Touba loolu 1914 la woon kon bu jëlee kër gi tudde ko Ndindi loola tawféex la sutural ndax su ñun suñu lépp sëñ Fàllu la ndax yaa ngi koy junj léegi ñu bokk ci kër Mamour jaara Euh, xam nga ne sëñ Fallou lépp Mamor Jaara la euh, loolu moo tax kon ñu jëlaat suñu lépp rek jébal ko Cheikh Mamadou Fadil muy muy suñu lépp di nuyu bu baax euh, kilifa yi nga àndal ci wàllu liggéey bi rafet rafetlu seen liggéey jërëjëf. jërëjëf moom nag kilifa ak diine la ndax li ko suñu borom boole ci waa kër Cheikhul Khadim waaye homme de média la mu nekk nag loo xam ni. Euh, dafa mel ni Mbacke duñ koy faral di gis de ku sant Mbacke toog ci télé bi rajo bi. wallaay ndeysaan dëgg la dafa mel ne yàlla def na man may ñaareelu ki ko ki ko mas a def ndax kiñ ci njëkkoon a xam mooy Serigne Mamor xam sa diine. Serigne Mamor bu lamp xam sa maanaam toog ci rajo di animé xam sëñ Xaadim Mbacke conférencier moom da daan def ay conférence daan waxtaan ci sëñ tubaa loolu moom bëri na sax ñu ko njëkk a def ndax boo xoolee sëñ Moussa Saliou conférencier la woon Serigne Abdou Lahad ci boppam conférencier la woon. waaw mais nag bu fekkee toog ci rajo di wax di animé. Euh, sëriñ sëñ Xaadim Mbacke moom sëñ Ibrahima. waaw sëñ Xaadim Mbacke moom sëñ Ibrahima Mbacke. waaye sëñ la ñu xamoon ci Lamp Fall mu daan animé émission xam sa diine yàlla def na suñu mag la ñu bokk way jur euh, moo ñu jàngal itam métier mi itam moo ñu ci dugal waaw moo ñu dugal Lamp Fall 2005 ca lañ tàmbali woon daanaka def nañ ci fukki at yoo xam ne yëpp fële ca région Diourbel lañ nekkoon bay soog a agsi fii ci Ndakaaru Euh, loolu moo tax waaye lu ci nekk liggéeyu sëriñ bi la ndax xam nga mbàkkeet aw sant la euh, doxul diggante itam euh, ki ko sant ak liggéey waaye la muy liggéey la ñuy xool ndax lu dëppook sant wala wala déet ndax buñ ne mbàkke ñëpp siggi xoolaat la war ngaa nekk ci loo xam ne la sëñ Tuubaa waxoon soxna Fadja ne ko Fatima mu ne ko mbàkke mu ne ko ba du ngeen ma rusloo mu ne tekk mu ne ko ndax xam ngeen luy rusloo ma mooy di wax ne fi man nga ba woote ne woo ci li ma ne ba yaakaar naa toog cib rajo nag ak cib télé di jàngale yàlla ak ab yónnenteem ak Serigne Touba loolu bu Serigne Touba di kaatoon jamono it yaakaar naa dana jëfandikoo jumtukaay booba ngir jàllale message bu l'islam moo tax ñuy liggéey Serigne Touba ci fànn googu waaye bëriwul nag ba fii may wax ak yow boo ci limee ñaar doon ñett. bu ñu duggee ci waxtaan wi euh, màggal 2020 dafa nekk nag benn particularité ci jamono maanaam ndax contexte bi mu dajeel. xam nga Covid 19 moom daanaka ku def émission di nga ko tudd moom daal ko bari bàyyi la Covid 19 <laughs> coronavirus alors ñu euh, seetlu ni nag événement yu bari yu fi jaaroon dañ leen a annulé mm-hmm. yenn yi daal maanaam ñu def ko ci ak dal mu bañ a am dajaloo am dara waaye màggalu Tuubaa moom. Mm-hmm. maanaam euh, dañu ne daal coow li xawoon na bari jamono yee laata sëñ bi di wax ak yooyu mhm. waaye Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te wér mhm. euh, joxe ndigal ni màggal gi nañ ko def ba fi mu ne murit yaa ngi koy waajal mhm. alors boo ñu doon defal jàngat sëñ bi ci contexte bi ak dimension màggal gi lan lay doon Mbàkke waa kay jërëjëf sëñ Ahmed euh, daanaka man damay weesu sax fi may tàmbalee damay weesu foofu ko nit ñiy xaar damay deeru rek ci alquran li alxuraan wax ne maa farat naa fi kitaab min shay'in mooy alxuraan bawul dara bawul dara jooju dama cay sukkandikoo beneen aay bu wax ne wanu nazzila min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil muminin maanaam bu fekkee jàngoro dafa am wala jafe-jafe nee na alxuraan mooy li ñu war a saafara mooy li li nga xam ne moo mënal jural jullit ñi yërmande moom alxuraanul karim léegi nag kon buñ nee alxuraan fuñ koy jàngee fii ci ëpp ñu ne ci jumaa yi ak jàkka yi ak ci daaray kaamil yi ñu ne itam l'islam dafa soppu mbooloo ndax aljamaahatu rahma da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi nag kon mbooloo moom bu demee ba mënatul am dajaloo di jàng alxuraan mënatul am moo tax ma ne la fi may tàmbalee sax dana xaw a sori ngir daanu si ci màggal gi nga dem bañ ne li tax adduna day bu fekkoon xëy nañ suba ba ngoon kenn jàngul benn benn aaya ci alxuraan adduna tukki ñu dem ba daanaka bu fekkoon daara yëpp déggal nañ sax état bi fi nekk kon daara dootul dox te xam nañ ne Sénégal réew mu ndaw la ci àdduna doon itam réew mu néew doole yaakaar naa sondage bi nga xam ne defoon nañ ko euh, bu ma juumul 2017 25 pays yi gën a pauvre ci àdduna bi ci la bokk ñaar fukki réew ak juróom léegi kon réew moom la koy aar ba tax ñuy dund di lekk di naan kenn deewu fa ndax ab xiif ki feebar yi itam daanaka reyu fa kenn wala feebar bu fa rey nit rey na keneen feneen ci dëkk ba gën a am doole ci àdduna bi léegi la leen yàlla ruuse kon mooy la leen yàlla ruse itam mooy mag ñu baax ñu ndono li nga xam ne moom lañ fi bàyyi léegi nag loola bu ñu fexee ba jëlee ko fi eh, profito ci contexte yu mel nii te état ñaare buy def tey taxul muy def ëllëg ak ginnaaw ëllëg mooy tax muy def waaye nag loola di ci gërëm bu baax sëriñ daara yi ak ñi nga xam ne eh, ñoo ngànk wàllu diine ji dëgër gi nga xam ne wane nañ ko rawatina Cheikh mun Muntaxa ndax keroog bi nga xam ne ci lañ ne càpp ne lay ñu ne nañ te jumaa yi sëñ Muntaxa moom nanguwul yaakaar naa jumaay Tuubaa ku xam xam nga ni ma sa tëj mësul itam euh, ñàkk julli nii julli juróom nii julli ajuma yépp daf koy def organisé woon nañ nag ba nga xam ne xëy na bu fekkee feebar baa nga fa woon du mën a contaminé kenn maanaam du tasaaroo waaye teewul julli gi doon na am fekk xam nga bu fekkee dañoo da nga am kilifa diine nga jox ko sa bopp ne ko jox naa la sama bopp àddina ak laaxira wëratuloo am looy bëgg li tax mooy sëñ Tuubaa dane rafetal njort ci ne moo xam li lay jëriñ àdduna moo xam li lay jëriñ àlaaxira te mun Muntaxa nit la boroomum xel la ginnaaw cër bi nga xam ne itam am na ko ci yàlla ba ñuy tëjloo nit ñi jumaa yi booba marché yëpp a ngi dox te jumaa sëñ Ahmed bis bu xam nañ la cay jullee ña cay jullee menn mbooloo mi la rawatina julli juróom yi amul jenn jumaa fii Sénégal fii Sénégal laa wax de demal Touba demal Tiwaawan demal Laayeen demal Medina Baye amul jenn jumaa joo xam ne julli juróom lu mat cent personnes dana fa jullee amul Sénégal julli juróom laa wax de lu mat cent personnes dana julee ci jumaa ja man Touba dëkk maa ngi biir Touba mosquée fa laay jullee waxtu juróom yëpp léegi nag kon ñooñu yomb nañoo organiser jullik ajjuma la ñuy wax ajjuma ba ajjuma la mbooloo di daje te lay dajee ca marché ba moo ëpp lay dajee ci jumaa ja te pourtant marché yi dañ ko organiser bàyyi ko mu continuer transport bi dañ ko organiser bàyyi ko mu continuer nañ organiser marché yi organiser ko transport bi lan moo tax organiser wuñ ko barabu jaamukaay yàlla ngir ñoom itam ñu mën a doxal euh, seen jaamu yàlla parce que ñun bu ñu tiitee foofu lañ mën a ñaane yàlla léegi yaakaar naa dégg naa Serigne Cheikh Ahmad si almakatoum bi bi yëf ñëwee ñu indi benn et cetera ci waxtaan woo xam ne defoon na ko mu ne euh, feebaru mbas dafa mas a am nee na ñu ñëw ci Serigne Babacar si ne ko dañoo bëgg a tëj euh, jumaa yi mu ne xëpp naa def noonu la ko waxee yaakaar naa waaw waaw waaw ne fañ fañ daan ñaane yàlla bu ñu jaaxee bu ñu jàqee baa ñu jaaxle buñ ko tëjee léegi bu ñu bëgg a jàkkaarloo suñu borom fan la dem day kon loolu mooy liy dëgg léegi nag beneen ba ca topp ñu weesuloo lépp feebar bi di continuer ñu ne mi ngi law mi ngi tasaaroo wax dëgg yàlla sénégalais yi itam doxe ci mat gu mat sëkk nag bëgguma ñuy xarab sénégalais yi bañ ne toog leen seen kër toog nañ seen kër biñ fi defee état d'urgence couvre-feu gis nga li nit ñi daj teewul malgré ñëpp toog nañ seen kër ñu bëri seen liggéey ca da yàqu ñu bëri ca ñu leen dàqe teewul itam ñoom lañ war a def def nañ ko léegi nag bañ demee ba jëmmit jamono dox ba nga xam ne feebar bi xëy na gis nañ ne bu doon téeméer la mën naa am fukka ca des léegi nag contexte boobu ci la màggalu Touba ñëwee màggal gi bi muy ñëw sëñ Muntaxa dafa wax lu leer nañ président Macky Sall dane ko mën na la mën naa laa garanteel ne màggalug sëriñ Touba gii daañu ko amal ba mu jàll ci jàmm te jàmm rek ay xew loolu sëñ Basiir wax na ko ci première déclaration bi muy xam xamle ne màggalu Touba day am loolu waxal na ko ci boppam léegi nag kon màggal gi ca lañ yaakaar suñu borom jaaree fa raxasal ñu réew mi xam nga lu tax ñu delluwaat nag ci cosaan li ñu soo ma soog a dugg nag ci question bi ma laaj dëgg-dëgg mooy màggal gi ak contexte bi mu ñëw màggal gi ak cant la dug màggal ak cant la màggal mooy di màggal nit wala ngay màggal yàlla ak yëkkati lii na tuddulug màggal ak cant la sëñ fallu moo ne woon nañ koy woowee màggal baatu màggal ci sëñ fallu la njëkk a génne waaye jiitu sëñ fàllu ak cant lañ daan wax ndax sëñ Touba keroog wax nga ko léegi ci sa tàmbalik waxtaan keroog samdi la le 10 août 1895 moo tolle moo tombé yoon ak samedi euh, euh, euh, fukki fan ak juróom ñetti ci weeru safar mooy xarajtu yow ma sabti saamini hasar jooju li xidmatil moxtaari fii saxri safar bis boobu sëriñ Touba génnee jëm ci tukkib géej gi ak fi mu jaar ca la waxee ne bis bii day na ngeen ma ci santale suñu borom ndax lépp lu ma yàlla jox ci ay ngëneel yu ma leen mën a jariñe adduna ak àllaaxira sëñ na ci bis bii laa ko amee ndax bis bii bu amul woon nee na tukkib géej gi du am te laa jëlee lépp lii kon bi kon sarmadan wàcc xal masiri sa jaw fal fara lil wara misal maharini sëñ Tuubaa nee la ma ca jële mooy la ca la gën jaw fal fara buñ ko doon firi mooy tey bu fekkoon da ngay dem rëbb picc mi nga xam ne moo ëpp doole tey boo jàppoonu baa nga ngay bu jàpp piccim baa yaakaar naa ne mën ngaa dëpp dem ñibbi sëñ Tuubaa nee na la ma jëlee ca tukki ba mooy la gën nee na la ëpp doole lépp sëñ Seexul Xadim nee na ci laa ko ci laa ko jëlee te loolu eh, ci bis boobu la ko amee moo tax sëñ Tuubaa ne kon sant gi ma war a sant yàlla nag man man rek lottu naa ci man rek mënu ma koo sant parce que kenn laa mu ne kaay leen nag ngeen santale ma yàlla ca cosaan la kon ku nekk fa nga dëkk nga ko doon defee ndax sëñ Tuubaa mi ngi joxe woon digalul màggal gi njaareem njaareem la joxe woon digal li jiitu yaakaar naa ne euh, ay juróom-ñaari at jiitu muy 1927 la ko jiitu donc ku ne fa nga dëkk nga ko daan defee bi sëñ Fallou dikkee nag ci xereñam ak wuuti gi mu wuti sëñ tubaa ak euh, ma fàttali ko wax ju am solo ja nga xam ne moom la euh, sëriñ Abdoul Ahad waxoon ne woon mbirum sëriñ Touba de ni mu demee mooy dafa mel ne basang gu ñu ràbb ba mu yegg nee na bis bu set ñu tàllal aw laf ci basang gi nit ñi naan lii fu mu nekkoon lii lu bees la fekk sëñ Touba noppi woon na ci démb tay soog a jow keroog bi sëñ Modou Moustapha di liggéey jumaay Touba ngoonu tàkkusaanuk ajjuma ñu toog di naan café mu dégg koy jàng xasida ba àgg ci bay bi seexul xadim di wax naan wacc xal bihi daariya kal madina barakatan wal kahbatan masuna yow suñu borom defal ma Touba mu mel ne Makka ak Madina ci saahir ak ci baatin ci barke bi lépp sëñ Modou Moustapha ne li ma sëñ Touba wax te gisaguma ko laa gën a gëm ci li ma gis ba noppi daan ne kaasub kafe bii ma téye mu leer ma ne kaasub kafe la li ma sëñ Tuubaa wax te gisaguma ko laa gën a gëm fekk booba lii lépp sëñ Tuubaa organisé woon na ko moo tax sëñ Fallou bi ñu ko indee Tuubaa mooy dane woon nañu daje buñ dajee ñi war a xamante xamante dafay jàllale itam message sub yoonu murit parce que booba rajo jumaa ji bu ñu annoncé Tuubaa gépp dañ koy dégg léegi nag sëñ Fallou xalif général des en tant que profito ngir li nga xam ne war na koo wax murit di ndax booba rajo demeegul nii tey euh, boo taalee sa raj sa rajo bu xalif sénéral de Mouride waxee balaa jant bee so waxtu wi balaa minuit mu wër àddina site internet yeeg xëy na ñu mel ne yéen tas wax jooju mu wër àddina ñëpp mën cee jot léegi nag booba lu mel noonu amul benn rajo fi nekkoon wala ay bataaxeel lañ daan yëgle moo tax sëñ Fallou woote woon màggal gi Touba léegi nag lu sëñ fallu def sëñ Fallou ku ne xam ko ci baatin ku ne xam na itam mësta réeroo ak suñu borom ñu am ko mas a wax ne sàmba day du man kanamam man ginnaawam sëñ Fallou ne Fallou mii de man na kanam man ginnaawam sëñ Fallou xamoon na lii te lii euh, sëñ Ahmed Sénégal ñoo gaaw a fàtte waaye Corée daje woon naa ak màggalu Touba. dëgg la deux mille. Euh, deux mille un wala deux mille deux ba deux mille trois deux mille trois la bu ma juumul wala deux mille quatre deux mille trois la wala deux mille quatre ndax booba sorewut ak. Euh, wàccub liggéeyub euh, Cheikh Mamadou Mourtada ginnaaw Serigne Mourtada la te Serigne Mourtada 2004 la fi jóge kon 2004 2005 la fi Corona amoon loolu moom lu leer la léegi booba tase woon naag màggalu Tuubaa te Corona moo gën a garaaw fuuf Corona moo gën a gaaw wàllati gën a gaaw a rayee dalay dal léegi nga dee léegi boobu man gis naa ko mu daal ca daara jam jaara jama nekkoon ñun ñëpp dañ ñoo évacué woon waaw bi dafa soxna soo xam dañoo waroon a ànd màggali mhm. ñoo waroon a ànd quoi sama sama xarit la ndeysaan euh, waaye ñu wax ni choléra am na rek mu ne mu ne ma dematul mhm. mu daal di far toog <laughs> waaw liñ na <laughs> mag la daal xelam moo ko may yaram euh, teewul màggalu Tuubaa jamono jooju amoon na ci contexte bu metti nag mais dañoo màggal màggal gi ci jàmm delluwaat ci jàmm te dara xewul Ebola yàggul donte xëy na duggul woon Sénégal dugg gu wér mais màggal Tuubaa xam nga ne moom waxuma la sous-région bi waaye addina séppum dañuy ñëw nit ñi di coow màggalu Touba nangam ñu màggal ci jàmm ba delluwaat te dara xewul coronavirus bi noonu la demee coronavirus bi noonu la demee te li ci gën a yéeme kero bi sëñ Muntaxa annoncé ne màggal gi c'est officiel day am yow yaa ngi gis bilan bi ñuy def chaque jour ñaata kaa lañ doon wax téeméer jëm kaw téeméer ñaar téeméer nangam waaye léegi bilan bi àggatul téeméer ta ñuy wér ëpp na téeméer kon la muy tegtale mooy màggal gi ndekete am na lu mu indi am na lu mu indi. nga xam ne kon màggal gi ëppoon naa bañ a def ci ñaar bi ci njëkk mooy éliminer gii mu war a jàngoro ji waaye ñaaree ba muy renforcer gi mu war a renforcer waat koom-koomu Sénégal. lu tax nga gëm ni màggal gi Mbàkke dafa war a éliminer coronavirus mu jóge fii. parce que sëñ Tuubaa dana saana fi bi dara di. sëñ Tuubaa nee na sama mbir njariñ la lu àndul ak lor. bu fekkoon nit ñi dañuy dem Touba di fa dafa di fa di fa wàllante feebaru coronavirus muy tasaaroo sëñ Touba du woote. xanaa ñun gëmuñu sëñ Touba. saa nafin bi laa dara nin sëñ Touba nee na sama mbir njariñ la. Mm-hmm. bi laa dara nin te amul lor. loolu seexul xadim ma ko waxal boppam. Mm-hmm. te sëñ Touba tey la fi gën a ne. Mm-hmm. sëñ Touba tey la fi gën a ne. lam lam tan mu nii muqaddamatul mawti waxad rafaxtu bil baxaayi sawti kafaani yal baaxi mamaata sarmada wa bi baxaayi yasuru ahmada sëñ Tuubaa tey la fi gën a ne waaye dafa am leneen lu yéeme loo xam ne ñu bëri bàyyi wuñ ci xel 1895 bi tubaab bi songee lislaam kan moo sowee woon diine sëñ Tuubaa bi merle taxawee fii ci ndar fëgg dënam ne an naa mu dabbirul umóor man maa yàllay jaam ji ku jàkkaarloo moom sëñ Tuubaa taxaw moom ne jàkkaarloo moom ne ko da ngay kàcc moomoo ndar kasabta moomoo ndar da ngaa judd fekk fi ndar te da nga deelu yàgg ndar di ndar ana maire lay gouverneur ana Leclerc ana Paul Marty ana ñu ñoom ana Faidherbe ñoom ñëpp faatu nañ ana ndar ma nga fam ne woon ba léegi bërki démb wax naa ko Teranga FM ci suuru ñaari rakka yi ca ndar léegi sëñ Touba nam sowee woon Sénégal 1895 l'islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel na làmbaay kenn amatul xasdu li wacillaahi kaa nga ki fóore faf di jaanilaahi Cheikh Bamba daal di ñaan ci barket jiili ne yàlla maay saafihu kullu jiili maay xaadimu rasulu fii suudaani maay rem xar du may andi niiraani la feeñoon booba moo feeñaat ci jamono ji sëñ Tuubaa moo sooy waat lislaam bi ñuy tëju bàyyee jàkka yi fépp a tëj sëñ Tuubaa rek a bi ñuy tere tudd yàlla ñëpp a noppi sëñ Tuubaa rek a yëkkati baatub laa ilaha illallah Sénégal toll nay jamono ba fii may wax ak yow fépp dañu woon nem Tuubaa rek ngay dem dégg allahu akbar kon sëñ Tuubaa sooyee lislaam baatu allahu akbar allah bi dikrillahi tatmainal qulub la alquran wax nee na tudd yàlla nee na la seeni xol di dalee ci ngeen di féexe ci ngeen di amee jàmm ci ngeen di wére xanaa moo tax mu ne wa amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaanal muridu yuksaru fa huwa akbaru kon jeexal nay wax mooy li féete ko lépp. léegi moom mi xaadim. Mhm, seexul tax mu ni allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu zil madina. loola bi ko loola bi ko Serigne Touba di wax duggagul ci géej gi. ah. ci tefes gi la ko Serigne Touba waxee. waaw. dafa am yeneen bëy sax yi ci topp dinaa ci ñëw. gis nga Serigne Touba nee bi may dem ci géej gi. nee na jaamu yàlla. ma ci malaaka ñeewuma ci ab yonent moom sëñ tubaa ci boppam yeggoon na sëñ tubaa demutoon ci géej gi pour yegg ci yàlla de sëñ tubaa njëkk muy dem ci géej gi nee na jaamu yàlla yegg ci yàlla ñeewu ci malaaka ñeewu ci ab yonent waaye dafa demoon ngir xettalee yaa ahla barri yaa ahla bahri woo jooli barri bahri saxaay sëñ tubaa ne na njëkk may dem ci géej gi dafa mel ne damaa nuyu ko yore ko yore parfum nee na parfum bi des ci samay loxo di ci xee njëkk muy dem quoi. njëkk muy dem ci géej gi. njëkk 1895. tubaa sëñ Touba 1853 la ganee jamono. 1883 la woote yoonu Murit. 1886 la sañc Daaru Salaam sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha ñoo fa ganee jamono sëñ Modou Moustapha moo magi sëñ Fallou 6 mois 17 jours juróom benn weer yu teg fukki fan ak juróom-ñaar rek la sëñ Modou Moustapha magi sëñ Fallou ñoom ñaar ñëpp ca Daaru Salaam. 87 88 sëñ Touba sanc Touba sëñ Baara ganee fa jamono mu sax fa juróom benn at jàpp juróom ñaari at ca la dem ci yéen jolof woote booba euh, xalwatu booba ca jumaay daaru xuddoos ja buñ ci duggee day gën a gudd parce que damay bañ a <laughs> dugg ci tracé bi bu booba yaakaar naa ne euh, dootuñ mën a taxawati léegi sëñ Touba dem ci géej gi nee na booba dama mel ne kon ku nuyu ku yor parfum mu des ci samay loxo ku ma nuyu mu xeeñ ci say loxo nga ne ma jox ma parfum sëñ Touba mu leer ma ne man yoruma parfum seexul xadim nee na lay ngor nag mooy ma dem wuti ko ba ku ma ko laajati ma jox la ko sëñ Tuubaa ne loolu moo tax ma dem ci loolu nag du du da ngay jóg-jóg rek dem mu neex la ni nga dem déedéet sëñ Tuubaa bi mu dem ci géej gi bi mu duggee xalwatu danaa ci ñëw sax bëgguma ci woon a xuus ci jàkk ji ci Daaru Xuddoos fukki fan yi mujj ci weeru koor ba ko yonente bi feeñoo lu mu ko wax dana ko maqaama mi ngi doon wut si muy xutbu samaan laa ñëw ngir jox la ko booba sëñ sëñ Tuubaa ñeen fukki atam manqué na ñetti weer yonent bi ne ko maqaamam xutbu samaan mii ku mën sa ku mës sa am ñeen fukki at duñ la ko jox yow nag da ngay samab xarit moo tax ma talañal la li ci des ngir jox la ko fekk boobu bi yonent bi di ñëw mi nga ànd ak waa ahlu badar malaaka ya ak sahaaba ya sëñ Tuubaa ne ko ñii àndal ñan lañ mu ko ahlu badar sëñ Tuubaa ko ci ñii laa bëgg a bokk bi du mooyu muñ ne ko faat na ne ko Ahmadou Bamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko faat mu ne ko lu tax mu ne ko ñaar rek moo ci mën a nit mu ne ko bi ci njëkk mooy ànd ak man xare ba daal te xare daal faat na fekke woo ko ci saahir ñaareel ba mooy mboolem li ñu tegoon yonente yi fi jaaroon yonente yi ñaata lañ cent vingt quatre mille prophètes sëñ Tuubaa wax na ko ca téere ba fa xakadun minal uloo fi yaa rajul téeméeri junni yonente ak ñaar fukki junni yonente ak ñeenti junni ñecce di ay mursal di cent 313 ñetti téeméer fukk ak ñett mu ne ko mboolem natt yu ñu leen tegoon ñoom ñëpp danañ ko boole teg ko yow kenn boo ci muccee bokk ci garaatu lu badar ne ko nag da ngay samab xarit parce que lii nga doon sàkku ñu bëri sàkku nañ ko waaye bi ma leen gaaralee ñu nangu bañ demee ba ca ba ca biir dañoo deltu ginnaaw sànjam suñu borom dal ci seen kaw yow nag da ngay samab xarit bëgguma loola yàqal daane ko maqaamum xutbu samaan maangoog seetal ku la neex ci sa waa kër nga jox ko ko sëñ Tuubaa bind ko simaamul wara hasri ladallahi fi yadi wo ma rumtoho min malike khadamil anil minen nene mboolem ndosi ndosi min ndeefi yépp suñ tuba neen borom teg na ko ci sama loxo zimamu wara asri ladallahi fi yaddi min malike khadabil anil neen suñu borom dootu ko nangu yàllaa ma ko jox te dootu ko nangu déedéet bi xa xadim toogee Touba ab diir nattu bi tàmbulewul mu duggaat xalwa laaj yonente bi mu ne ko sa dëkk bii di Touba ñaan nga suñu borom ba mu aaral la ko wa jannatan li salikil muridi wa jannatan anatikil maridi ñaan nga ci matlabul fawsayni ba musiba du fi dugg li feeg yaa ngi Touba am nattu du la fekk ñaareel ba sa nijaay ji tudd sëriñ bu soobe ku la yërëm la ku yegg ci yàlla la ku yàlla rus la bis buñ la tegee am nattu ci kanamam ñaan suñu borom mu ko te bu ko tegee la nga bëggoon doo ko am sëñ Touba génn Touba dem Baari ca Jolof ñu ne ko Mbàkke foo jëm mu ne yonente bi na Màkka dem Madina sëñ Moussa Ka ne ko xaaral ma way ko këlee rañaane Màkka jëm Madina kilee rañaane Mbàkke jëm ci diine këlee ci alburaax jëm asamaaw kilee waroon ci gaal doon noon yi di ko laaw këlee rayum noonam Abu Jahlin Badar kilee tuubalum noonam te bocciwul gobar këlee jihaar ak gaa yi di far ay bakkan kilee jihaar jihaare bakkan këlee yoroon tay ba te yoraale Màkka kilee yoroon Tuubaa yoraale Mbàkke waaw léegi sëñ Mamour loolu la sëñ Tuubaa wax ne araada an anaala minhu jaaha wa an akuna saafian li xawmi wa an akuna man fi daw mi loolu mooy sababu xëyb mooy sabab sabab sababu baatin bi sababu saahir bi nag mooy tuumaal ji nga xam ne tubaab bi ñu ngi doon tuumaal eh, jaare ko ci Euh, euh, lettre boobu nga xam ne sëñ Fall wax na ko maam Abdouloo ko bindoon euh, jël kaseeb sambalaw bi def sambalaw bi Fall def ko ci wax ne man la Ahmadou Bamba maag sambalaw bi ñu ngi ñëw dal si ci sa kaw nguur gi nga yor moom lañ bëgg a nangu bañ tàmbalee di woo sëñ Touba sëñ tubaa di refusé lettre yi ndax booba amagul ndigalul yàlla ak yonente bi ñu ne ko demal ba ca la yebal maam Ceerno borom daaru Moti Ndar lu bari xew fa ginnaaw bi mu dellu siwaatee ca fajaruk samedi googu ca la sëñ Touba takk ngir dem ci géej gi ba ndakaaru xalama ni rahmaani fii safina jooju sax ndakaaru googu la xewe woon fii ci ndakaaru bi sëñ tubaa taxawee ci tefes gi bi muy dugg ci gaal gi la ma la ne ma fii may wax ak yéen suñu borom xamal na ma ne yow yaay xaadimu rasul dane xallama ni rahmaani fii safina bi annani xadimu sil madina lil muntaxa wajatu fii safina xablu sana yaxlulu fil madina subhaana man lii jaade bi safina bi xidmati li saahibil madina sëñ tubaa nee ne fii ma taxaw ci tefes gi lama ma suñu borom xamal na yaay xaadim rasul kon bu doon xaadim rasul rek la sëñ tubaa doon wut kon du dem ci géej gi ndax njëkk muy dem la ko am te raw na ci ñëpp nag raw na ci Kahbu raw na ci Hassan raw na ci Busayri ci xaadim rasul moom rek tey boo bindoonub leetar ci àddina foo man di nekk ci àddina nga ne xaadimu rasul la leetar bi jëm ñu ne la Sénégal waa léegi moom ni mu gore te gore rek te ñu mu wàññiku a afawtu anil aada i turan li wacc himan nafaahum li xayri sarmadan lastu adfau sëriñ bi moom gore gi mu gore moom loolu yéeme na de te mën a muñ xam nga loolu da koo firi ci wolof afawtu anil aada i turan jooju da koo wax ci baati wolof yi gàtt sëñ Tuubaa de ne damaa mos ñu tooñ ma ma muñ yàlla fayul ma fay ma di cay teg ne kuy tooñ du mucc yàlla fayul ma fay. waaw damaa mos ñu tooñ ma mamuñ muñ yàlla fayul ma fay ma daan ne kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du noppalu. kuy fayu du noppalu déedéet. jërëjëf Mbacke loolu la sëñ Tuba firee bayit boobu. na moo tax bi mu nee cëpp sëñ Tuba amoon na doolay jàkkaarloog tubaab bi ndax booba yoonu murid yokk na te murid yi gën nañ lu leen sëñ Tuba wax danañ ko def. ta bu leen sëñ Touba ne woon dee leen ba jeex comme ren jii 2020 bu sëñ Mountakha ne woon ñëw leen dee si man kenn du jiit Touba maa ngi a dee ñëpp ak man ak ngëm googu nag sëñ Tuubaa ko suñu borom jagleel nangu Cheikh Sadou Habib dani woon da doon wax ku nekk li ko yàlla jagleel mu ne ah xol yu nangu nag moom ba leen ko xëccoo ak Ahmadou Bamba moom la ko yàlla jagleel lu ci sëñ Tuubaa teg nee na xuloobu jumlati lesina aflahu li yatawajjahat wa rabbi muslihu nee na suñu borom day képp koo xam ne ak texe ak texe manqué sa xol sëñ Tuubaa neen dëgg ma bëgg. nee na yàlla xar na xoli ñi nam ma texe def def bëgg ma alamu man xasadani laa yéen sarim wa bisru ma yuhibu ni laa yéen sëñ Tuubaa na ku ma bëgg sa mbégte du du ma sa jeex waaye ku ma bañit saw naqar du ma sa dog ndeysaan xam nga dafa am ku wax mu ne un oui n'a de sens que quand celui dont il émane a le droit de dire no mm-hmm. mais ñun amuñu droit wax non Sëriñ Bamba déedéet ndax ngor mm-hmm. ndax loolu ngor waruñu ko may mm-hmm. parce que parfois sëñ bi da ngay gis murit yi ñu xaw a mel ni ñu xaw a agité maanaam ànd ak euh, yenn yëngu yooyu. mooy force. waaw maanaam yëngu comme bu ñu waxtaanee sëñ bi comme ni nga waxtaanee ni sëñ bi mm-hmm. am na ñoo xam bu ñu toogoon fii dinañu am lu ñu def. Mm-hmm. man dafa am lu ma jàpp ni loolu la Mbàkke lool lu koy waral. Mm-hmm. Euh, loolu li ko waral mooy maanaam li ñu tuddee daanu rek ma juddu ko. benn waaw kay ci laa jëm si woon sax maanaam euh, dañuy wax ne nit ku nekk. la nga def bu la yàlla di fay dalay fay lu toll ne la ko defal sëñ Tuubaa fi ko yónnente bi tolloon ba buñ ko tuddee mu tàggu ak sagoom ba am nit ku daan mag mu daan jaay ay rësool ca këru njaareem ga ay weñi rësool yii ñuy jële ci oto la daan wër di ko jaay di ko feeraay bu ma saana jaar ci ginnaaw kër gu mag gi naan rësool yaa ngi rësool yaa ngi sëñ Tuubaa daw leen dabali ma ko daa di ànd aal ñu daw dabi ko mu ñëw sëñ tubaa ni ko réseau yi nga yor ñaata la mu ne ko mbakki lépp nangam la sëñ tubaa wàññi jox ko mu dem saa su fa jaaree ne réseau yaa ngi ni sëñ tubaa jënd lépp ñu di ko jàll am ñu doon laaj sëñ tubaa lii loo koy day nga xam ne sëñ bi sax moom xamutoon la muy jënd waaye turu réseau ba cay tudd rek moo benn bis waa ji jaar fa ne weñ daal di ñëw ci sëñ tubaa ne ko mbàkke day weñ gama la daan indil indeeti naa ko sëñ tubaa ne ko ak weñ day soxlawuñ ko ci dara nga xam ne ca la njaay ba doog waaye li feeg ma nga doon tudd réseau sëñ Tuubaa di ko jënd xoole li ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaraloon xoole li ko yónnente bi jaraloon ba sëñ Tuubaa ne man day sama bëgg ci yónnente bi jaral na ma bu yónnente bi yëkkati woon ab tànkam nar koo teg ci dëkk man Ahmadou Bamba ma dem laytaaya sama lexum ndeyjoor yónnente bi joggi ca sama lexum càmmooñ dégg gi jëm ci sama lex nee na mu jàll te du ko yëg mahad mahabatiyal muxtaari sayidana hubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadi fidaun lahu habdan xadiman lahu muskaana lii sanada loolu la sëñ Tuubaa waxal boppam nee na sama deret samay ñooñ samaw askan samay waajur lépp sëñ Tuubaa neen tayle naa ko ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sëñ Tuubaa bëgg yonente bi ànd ci woon ak sago bëgg googu mu bëggoon yàlla ak yonente ba amu ci sago nag bëgg googu la ko suñu borom fayee ci murid yi moo tax bëgg giñ bëgg sëñ Tuubaa amuñ ci sago nafsi wa diini suma ahli wal wa maskani laka wa diixatun habat nafs yi la njëkk a wax wa diini suma ahli wal walat lépp da koo tayle ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon sëñ tubaa ñàkk gim sago ci bëgg yonente ba tax mu ne salaatu sitta bi bat yi sitta weer wi ñaat euh, at mi ñaata weer la fukki weer ak ñaar douze mois sëñ tubaa ne ni six mois yi dama koy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam six mois ci des ma koy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne léppam daf koo jeexaloon ci yonente ba amu ci sago bëgg googu nag sëñ Tuubaa bëggoon yàlla ba àndu ceeg sagoom ba tax mu cëppeelu cim ndox di julli te booba sëñ Tuubaa amoon na ngàntul ba ñuy julli ndax booba mi ngi ci tukki tey mi ngi ci loo xam ne nekkul ci sagoom maanaam ci loxoy ay noonu la nekk maanaam nekkul ci liberté boppam sëñ Tuubaa ànd ak gëm yàlla ba mu cëppeeloo ci géej gi ba delloo bañ ko laajee lu mu wax sëñ Tuubaa dañ dama gëm ni géej gi jaamub yàlla la man itam jaamub yàlla la ma gëm ne jaamub yàlla sañ naa jaamu yàlla ci kaw jaamub yàlla sëñ Tuubaa laa ko jàppe ya bahru wahid la tusallis fa rabbuna taala ala taslisi akrim bihi rabba fakun sattirabin musbidan min maxaafatin min allahi wasat annani abdo sabba fekk lam njëkk a wax mooy liya sat bi kaw nii habda man yaxfiru sanba wa kaw nii xadimal mustafa bahru ma yomba sëñ Tuubaa ne ne yow géej man ahmadou bamba jaamu bi yàlla daal di liggéey ko def yonente bi yow géej gi nee na deel defal lu la neex waaye lépp dee ko def ci ragal yàlla sëñ loolu ko yàlla la murid yi loolu la ko suñu borom fay murid yi sëñ Tuubaa jaral leen ko moo waral daanu bee jëll bi waaw. xam nga Mbacke dañuy faral di da xam nga waxtu yi sax ñu ngi may signaler ni li ci des euh, bariwul xam naa cinq minutes moo ñu dese léegi euh, Malick Fall <laughs> taalibi sëñ Fallu nee na waxtu yi jeex na léegi Mbacke euh, sunna xam nga dañu ne ñun dañu war a yonent bi sallallahu alayhi wasallam inna lakum fii rasulillahi uswatun hasana yàlla moo ñu ko digtal ñuy roy yonent bi sallallahu léegi Serigne Touba mu am ay niroo yu bari ci diggante moom ak xaat ak yonent bi sallallahu waa léegi loolu mhm. xam nga comme am na ñoo xam dañuy am nañu tuddee sallam ahlu sunna mhm. maanaam di di di di roy bi sallallahu léegi tey tey te sëriñ Touba moom dañu gis ni maanaam ci ñi nga xam ne jàng nañu wala ñu am seetlu di mhm. dañu gis ni moom léppam daf ko roy ci yent bi sallallahu ba ci ni muy tuddee ay dëkkam ba ci ni muy tuddee ay ay ay ay ay ay ak njabootam ak itam ni muy doxale ay mbiram loolu boo ñu ko doon jàngatal ci lu gàtt rek maanaam maanaam ni mu ni mu ni mu sunnawee rek moom noonu yonent bi salaam ci jëf ci ci ci ci nekkin ci lil mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu alxarra wa inni ahmadu wa sunnatahu insha rabbi ubayinu loolu la sëñ Tuubaa waxal ba dafa jàkkaloog sëriñ Tuubaa di ko joxañ di ko way di ko tagg xam nga lu mu ko wax dana ko antal aminu bi ma rabbal aminu bihi harfan bi harfinu ma fi jili sarwaal daana ko yow sëñ Tuubaa nee na ko da ngaa niroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam harfan bi harfin daane ko ndëggul tànkul yonente bu ko teggi woon nee na tànk bañ cay tegaat mu yem ci képp du ëpp du yées nee na mooy tànk bàyyi sëriñ Saalifu di seexul xadim sëñ Tuubaa jël tànkam bi teg ko ci sunna di xeeñ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ tubaa yonente bi mooy wasilaam nee na wirdo maquus min allahi bi wasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi moo ko jox xarfa ci loxo boppam borom doon yabal Seydina Jibril muy ñëw ci yonente bi mu koy jox ay mission mu koy indi sëriñ tubaa sëñ tubaa nag léppam di sunna damay faral di wax des fois nañ wax ci kenn sëriñ bi waaye des fois itam nañ waxtaan ak borom xel yi. koo xam ne suñu borom def na nga amum xel amum njàng gis téere yi nga xool jëmmi sëñ Touba 1853 ba mu ganee jamono ba 1927 bi mu fi jógee kañ lan lañ mën a wax loo xam ne wuute na ak sunna ci mbirum sëriñ Touba kan la fi diine masa jaral bakkanam gaa yi dañuy coow rek dañu rek dañuy coow rek mais bu ab xare taxawoon léegi ñu takk seeni bagage léegi senegal day gent Sénégal day gent benn suur dama cee waxtaan ak benn waaye ma ne ko waaw dafa am ñu nekk fii di woote ahlu sunna ahlu sunna nangam ak nangam ma ne ko ñi ñuy woo ahlu sunna ñi ñuy woo ci sunna ñoom ahlu sunna lañ nañu dugg ci àll bi nañu dugg ci réew Afrique yi am na ay dëkk yoo xam ne xamuñu sax luy lislaam waa duñ fa dem woote daxwa duñ dem dafi daxwa mais sëñ Ahmed Seck bu ma la fekkee nga sol mbubb ma naan la dama laa jox mbubb mi pour nga sol ko te te geesu ci sama yoon gis ko solul mbubb loola ak yàq la te inna allaha laa yuhibbul musrifin wa anna al musrifina hum ashabun nar léegi na ñoom bu dee li ñuy woote dëgg la nañu dem defi ay daxwa woote ji ci lislaam woote ji ci sunna parce que ñii ñuy woo ñoom dèjà ay jullit lañ te ñu ngi ci sunna sëñ tubaa ku ko gën a nekk ci sunna amul réew mi amul ci réew yi reen sëñ laa wax de ku ko gën a nekk ci sunna amul ci réew mi amul ci yeneen réew njabootam gii ku leen gën a nekk ci sunna amul ci réew mi amul ci meneen réew loolu la suñu borom dogal te ku xool teg ko bët ku déglu gis ku déglu dégg ko ku yër téere yi itam fekk ci sëñ Tuubaa li mu bind lu wuteeg sunna amu ci nee na def jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa ba fi ku réer yaa ko teg sa bopp léegi nag kon kuy xeeñcu sëñ tubaa bol xool am Mamor Mbàkke mu dëng wala Mamor Mbàkke moo xam ne teguwul ci yoon wi demal nga xool la sëñ Tuubaa bind ak la mu def mais bi ngay xool Mamor Mbacke mu dëng mii ba tax ngay suuse yoonu murit naan yoonu murit lii sëriñ si lii ñaata sëriñ nga gis yu jub yu tegu ci siraat mu saxim romb nga sëñ Rafaam sëñ Fallu lan moo tax ne woo lii mooy yoonu murit romb nga sëñ Abdourahmaanum sëñ Abdou Khodos ya Daarul Muxti lan moo tax ne woo lii mooy yoonu murit romb nga sëñ Alaaji Mbacke romb nga Cheikh Mamadou Muntaxa dem ba gis Mamor Mbacke mu tekkiwul dara nga xam ne amul baat sax ci yoon wa mu nekk nga ne voilà yoonu mu a ngi nii loolu mooy dëgg-dëgg naa feq te innal munaafiqiina fi darakil asfali minan naari sëñ tubaa daal sunna la fi indi ku jaar ci sunna yaa ngi ci sëriñ bi ku jaar ci sunna nag sëñ tubaa ne na jotewoo ma ak dara foofu laay daanele waxoon na ko sëriñ Cheikh Awa Balla ak sëriñ Modou Awa Balla xam nga waxtaane sëñ tubaa nag damay faral di wax ne naan guy dolliw mar la naan guy dolliw mar loo ci am mu doy kenn soroxo soroxo ñun waaw xale bu ñu mi ngi noonu gis nga sëriñ Cheikh Awa Balla ak sëriñ Modou Awa Balla ñaari taayu borom daaru moto yu tedd ya sëñ tubaa dafa mas a jox ndigal borom daaru ne ko damaa soxla ñaari kaamil mu bind loolu ko ñaari taawam bañ ko bindee ba noppi ca daarul man naan mu yëkkate addi am solo jox leen ne leen dem leen fekki njaarim ko tedd ki jox ko ko te déglu leen ba mu yeewi leen bañ dikkee jox sëñ tubaa addi ji mu fotta suñu teg bañ yëkkatee kaamil jox ko mu nangoo ko ñaari loxo teg ci dënnam daane hëkk ma dénk leen te yeewi leen Ceerno Ibra Faati ma leen yónni daa defaru yéene leen ak defaru moo tax mu yónne leen ci defarekat bi daan na leen kiy defaree tey dana leen wax lu muy yi muy defaree daan na li koy yàlla sant mu di ci jëm kéem kàttanam digal na leen ngeen jëm ci seen kéem kattan li ko yàlla tere te laalu ci dara digal na leen ngeen bañ cee laal dara ne leen ñaar yi ku ci sax foo mën a ne yaay ki ne fi man ku ci saxul nag jotewu ma ak yow dara donte yaa ngi ci sama bunt bi xam nga lu mu ca teg am na ñoo xam ne ëllëg yomal xiyaam du ma leen gis duma leen dégg ñoom itam du ñu ma gis du ma dégg. ñu ne ko Mbàkke lu ko waral mu ne la ma nekkoon dañ caa nekkutoon loolu de xanaa leer na moo ko waxal boppam de seexul xadim ahmadu mi cër bi mu am ci suñu borom mbindeef mësu ko am moom la ko yàlla ma sa jagleel xam nga lu tax mu am ko moo ko wut moom la ko jaraloon ba ñuy jóg di witu islam booba ñëpp a ngi fi waaye ku ne la a jaral am nga ko sëñ tubaa nag yàllaa ko jaraloon am na ko mooy tax booy wër yàlla demal ëttub sëriñ tubaa fa la ne Mbàkke ma bàyyal nga joxe message bu mujj bi rek waaw message bu mujj moom mooy sant rek Eh, di ñaanin ñu màggale ci jàmm eh, te benn murit bañ a déglu benn influence boo xam ne bu ñu xoolee ba ci biir dafay jóge ci ñooñ sax xëy na gëmuñu diine léeg-léeg nga dégg as ngóor su jóg taxaw ne man du ma màggale wala nangam ak nangam bu boobaa nag nañu xam ne ngóor soosa depuis mille mille neuf cent vingt-sept ba sëñ Modou Moustapha indee sëñ Touba Touba depuis 1948 ba sëñ Fallou wootee màggalu Touba sëñ Abdoulaat sëñ Abdou Khadir Alaaji Baara sëñ Sidi Mokhtar ba ci sëñ Muntaxa amul ku mas a defu communiqué woo ko ci màggal gi kon kooka yaakaar naa bu ne du ñëw it. wàññi dara de xanaa <laughs> wàññi dara. du tee màggal gi am. waaw te du tee murit yi màggal am na ku ma gis bu koy tooñ nag am na ku ma gis nag am na ku gis nag euh, dama gis euh, def naa mbërum làmb la. Hmm. Euh, waa ji ni ko di nga màggali mu mu mu bëgg koo door di ko boo mu nga waxatee di nga xam ni. <laughs> dëgg la xam nga xam nga xam nga sëñ Ahmed contexte bii ñu toll. question bi du ndax da nga màggale. man bu ma ñëwee ci yow naa ne sëñ Ahmed ndax da nga màggali. loolu du loolu du laaj bi xam nga luy laaj bi nooy màggalee. loolu mooy laaj bi ak fooy dal ak nooy màggalee ci yan anam ngay demee. yan matukaay ngay jël. loola mooy laaj bi mais laaj bi du ndax danga nga màggali wala doo màggali. waaw. waaw raxasu benn suuf dama doon conduire ba toll fii ci buntu foire bi benn waay woo ma sëñ Mamour sëñ Mamour ak yuux yi ma jàpp na lu ne la may doyee mu ne ma sëñ bi booba sëñ bi waxagul dara mu ne ma sëñ bi damay laaj gi moom ndax dana am wala du am ma ne ku baax may ma damaa yàkkamte dafa am lu may jëli fee te ñëw muy rocci bocc boppam ma dugal sama première accéléré ndànk dem sama yoon parce que dafa am lool ci ndigalu ci loxol sëriñ bi la nekk nañ ko bàyyi sëriñ bi sëriñ bi joxe ne ndigal nañ xam ne li gën ci loxoom la nekk te xam na ko te digal nañu ko eh, ñu dugg ci màggal gi ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin mën a waajal yeneen programme ci sëriñ bi loolu rek mooy li am solo ñi ngi sant ñëpp lu ñu fi wax te mu dëng ñi ngi koy tuub di ko jéggalu lu ci jubit ñu sante ko yàlla te xam ne suñu borom la euh, subhana te gis nga it ci contexte bi mu amee moom itam te téewul am na ci jàmm waaw kon xam nga xam naa ñoom itam xam nañu waaw metti woon na waaye téewul def nañ ko waaw kon at lépp àddina noonu la rek euh, lu nit ki gëm te góorgóorloo dana ko def na mu ko bëggee te du tee itam jàmm rek moo ci moo ciy juddoo ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah man nag euh, ci turu Ndindy Actu ak ñi ma àndal. mu di Malick Fall ak assistant bi ak ki suñu kilifa di soxna Ndeye Mbacke euh, man maa ngi lay ñaanal yàlla suñu borom nga yàgg fi te wér ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci woyof gi ak disponibilité bi ak xam-xam bi macha allah waaw ndax itam euh, mënoon nga ni Mbacke laa sant rek waaw gëstu as tuut rek daal dem toog ah nit ñi ñëw nga leen di ñaanal ndax euh, barke baa ngi fi. waaw ndax barke baa ngi fi koo ñaanal yàlla suñu borom mu mu def ko waaye da nga gëdam gëstu di donc euh, ñëw nag dem ci rajo yi ak tele yi di jàngale macha allah ñu ngi leen ñaanal suñu borom gën a yokk xam-xam bi nga yàgg fi loolu Mbàkke te jërëjëf kon ñu dem màggali te ñëw ak jàmm incha allah jërëjëf Mbàkke kon nag euh, ñi ngi woon fii ci Ouest Foire tey nag Mbàkke sa xarit moo ñu dalal ah moom moom dafa ni rek moom sëñ bi moom fii rek lay ñëw waaw ci kër gi Mor Mané Euh, moom suñu frère la nekk suñu wëllëre nekk sa wëllëre lool nag murid la moom murid la waaw murid la rek waaw loolu doy na doy na doy na sëkk voilà di gërëm soxnaam euh, soxna Daba Sey euh, moom itam di suñu sœur di suñu xarit di suñu lépp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci hospitalité bi di di nuyu soxna su mag si fi nekk soxna Ndare Baaba di ko ziyaar bu baax a baax di leen gërëm bu baax yéen itam yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci Ndindy Actu TV safaru bam sa Chine junnatun soxna Ndeye Mbacke moo génnee concept boobu kon nag Ila Touba Ndindy Actu TV man xaadani sukura fi anfasi